mbokk yi daleen ak jàmm hôpital dalal jàmm way tawat ya fa wuti naruñoo dal si jàmm ñoom ñi nga xam ne ñooy dund ak tawat yi nga xam ne moo di cancer buñ sukkandikoo si yéenekaay bi di enquête mu ngi naan ñu scanner a ngi nii dafa nekk si panne muy lu bi si li nga xam ne moo di radiothérapie tax ñi nga xamante ni bii ñoo di way tawat yi wuti si yeneen bërëbu fajukaay ñu si ëpp di ñàkk seen bakkan buñ sukkandikoo si yéenekaay bi di enquête mu ngay jox gi nag Moussa Sam Daaf mi nga xam ne mooy directeur bu hôpital dalal jàmm muy naan fournisseur yi si boppam ñoo am Matar waaye tamit bi la l'hôpital jege gi mu jege géej gi tax na matériel bu bëri di gaaw a yàqu ndaxte lay jógee sa géej ga mooy gaaw a yàq boobu le matériel las yéen kaay yi ñu naan ci diwaanu Thiès mat leen ngom mujj na ñàkk bakkanam ginnaaw bi nga xam tamit da doon mucc waaye ñàkk ambulance moo tax mu mujjee ñàkk bakkanam moom moomee nag mat leen ngom yéen kaay bi dañu xibaar naan dafa doon am ay tut tànk ay seex la am góor ak jigéen waaye ginnaaw bi nga xam te bii dellu na këram bañ ko joxe ab ruy si la commencé saigner mbokk ya bëgg ko yóbbuwaat si l'hôpital ba waaye mujj ñu am ab ambulance woto yi ñu ko dugal oto bu njëkk ba dafa paan benn oto ba dem ba si digg ba it daal di paan loolee nag waral mu daal di ñàkk bakkanam si yoon wa ginnaaw bi nga xamante ni bi doon nañ ko jële sànge wutali ko Grand Thiès waaye moom moomee sa yoon wa la mujjee ñàkk bakkanam ñàkk cet gi ñu seetlu si réew mi tax na président de la république ginnaaw bi mu yëkkatee kàddu si 31 décembre bi ñeenti fan si weeru janvier commencé nañu cet cetal gi fii si réewum Sénégal le quotidien xëyee bu googulee cet nga xam ne président de la république si boppam moo ko door ab opération Sénégal ngi naan nag mbalitu Sénégal yëpp nag daa mel ni dañ ko ngillarti si benn fan waaye yéeni kaay bi li mu seetlu dafa mel ni ni politiciens yi ñoo ndargaajoo moom la mbir Macky Sall si biir yéenekaay bi naan mbir mi du mbirum politique ak parpolo si wàllum politique du mbirum maire waaye mbirum ay gox goxaan la maanaam quartier yëpp ñoo ci war dugal seen loxo Le Soleil yéenekaay moom jàpp na ne forte mobilisation citoyenne moo fi am maanaam askan wi génn nañu ci mbooloo waaye googu gis-gis waroon naag lool ak gis-gis bi nga xam ne moom la Walf Quotidien am moom jàpp na ne journée boo xam te bi nag dafa géey lool maanaam askan wi wuy si wuñu si googu lay cet nga xam ne président de la république moo ko woote mi ngi naan alliés yi maanaam ñi jàppal tànk nguur gi ñoom jegewuñ ci googu lay cet-cetal diwaanu Matam sax dafay mel ni ay ministre am ay DG am ay élus am ñoom ñëpp daanaka dañoo wutee googu lay cet-cetal la seeni kaay naan cleaning day boobu kay daanaka bëlëf dëgg la ñu am ak ñàkk mbooloo moo xam te ni bi ñoo wuy si googu lay wootee waral les échos moom jàppe ko ab échec ginnaaw bi nga xam ne gis na ne mbooloo mu bari wuy si wuñ ci woote gi nga xam ne président de la république woote na ko moom président de la république nag mel ni mbir moomu da koo jaaxal mu ngi naan mbir mi waruñu koo def mbirum parparloo si wàllum politique wala mbirum moo xam te ni bi dañ koo bàyyee way politique yi rek waaye askan yëpp war a dugal seen loxo tax nag muy menacé bu ñu sukkandikoo si yéenekaay bi naan ak lu si moom salte gi nga xam ne moom la ñu woon ci biir réew mi dootu fi am te képp ku ko defati dinañu dëkk sa ndigg suuf sa anaan am na loo xam ne nag buñ ko saafare moom njiitu réew mi ak ab équipe am dinañu mujjee bi di day nekk 4 milliards d'ordures maanaam ñeenti milliards mbalit yoo xam ne ci mbedd mi lay mujjee ginnaaw bi nga xamante ne nga xamante ni bi ñoo di mbalit di fii ci réewum Sénégal naan dafa mel ni nag appal nañ ko ba fukki yore nañ leen lu toll si juróom-ñaari milliards ñoom ñooñee mujj banque seen loxo ndakaaru salte lool te si loolee yenn kaay bi naan boo moytuwul si la ñu jëmaat bi président ki ñooñam mu xëy a bale Ousmane Sonko gonte na feete juróom-benni at Pastef ginnaaw bi nga xam te bi am na si langue politique bi lu am juróom-benni at moom yenn kaay bi di L'As Quotidien xëy del si waat si kàddu Sonko yi nga xam ne yëkkati na si googalee ndaje nga xam ne waa Pastef ñoo ko doon am dafa mel ni nag Ousmane Sonko moom mu ngay dox wutali élection présidentielle yu te ni bi moo ne boy si biir réew mi Ousmane Sonko naan Macky Sall dina nekkaat candidat wala du nekkaat loolu lépp amul solo li am solo dëgg rek moo di 2024 moom dina jóge ci boppum réew mi Ousmane Sonko yéeni kaay bi di enquête naan mu ngay dox wutali 2024 maanaam sànce 2024 ci la dugg ginnaaw bi nga xam te ni bi kuréel gii di Pastef mu ngay féete juróom benni atam ci diwaanu politique bi fii ci réewum Sénégal Walf Quotidien moom dellusiwaat ci yooyu lay kàddu naan Ousmane mu ngay artu bu baax a baax njiitu réew mi président Macky Sall ci coowal ñetteelu mandat bi ci biir Vox Populi moom Ousmane Sonko mu ngi naan mooy leader politique bi nga xamante ni moom lañ gën a diaboliser fii ci réewum Sénégal maanaam la ñu gën a jima yàq deram ci réew mi Maodo Malick Mbaye ci biir Vox Populi ba léegi naan Ousmane Sonko kay dafay mel ni mooy ministre de la parole maanaam moo ndar gàjjoo wax ji wax képp lay def buñ sukkandikoo ci Maodo Malick Mbaye ci yéenekaay bi nga xam ne moo di Vox Populi yi ñu ngay dajalee a génn ak ndam ci élection waaye boobu boobulee koppar nag si ay militangam la ko Ousmane Sonko yaakaaree maanaam ak dajalaatoo la bëgg a fore lu toll si fukki milliards suñuy koppar l'observateur moom xëyee ab xibaar boo xam ne ñu bëri xaaruñu ko woon naan ndax ab deal dafa ndara am diggante njiitu réew mi ak njiital parti mi maanaam Macky Sall ak ki nga xam ne moo di Idriss Seck boobulee xibaar nag ñu jële ko si Cheikh Yérim sekk mi nga xam ne mu ngay wax si yéenekaay bi naan waxtaan jib na si diggante Macky Sall ak ki nga xam ne moo di Idriss Seck dafay mel ni sax déggoon nañu ci ay kàddu yooyu lee kàddu nag waa parti réew mi weddi wuñu ko ndax yéenekaay bi ñu ngi naan parti bii di réew mi waxuñu waaw waxuñu déet niiw wii nii non si nii nii googu la ñu nekk ndax Mimi it nekkul si nii nii gi buñ sukkandikoo si yéen kaay bi nga xam ne moo di la turbine moom ma ngay del si waat si kaddu yi Mimi nga xam ne moom it yëkkati na ay kaddu niki démb moom tamit dafay mel ni kaddu yi njiit réew mi yëkkati woon rek si la jaaraat waxul lu reer si moom lay miir ay kaddu yoo xam ne demul cëng dikkul mbay laar jeexal ak wàllum tàggat yaram ak rogot yéen kaay bi nga xam ne mu ngay xibaar naan dafay mel ni nag atum ren di ballon d'or bi nga xam ne moom la CAF Award 2019 ci diwaanu Afrique di joxe doomu Sénégal jii di Sadio Mané moo ko nar a jël ndaxte ab taxawaayam moo gën a mucc ayib te ñëpp it njort nañu ne ni ki ëllëg di talaata juróom-ñaari fan ci weeru janvier dinañ ko jox boobalee ballon d'or ñu ngay ragal naan nag ndax Mohamed Salah dina teew ci boobulee joxe ballon d'or bi foofu ci diwaanu Égypte ay laaj samp nañu ci ndax yaakaar ne da ko nar a jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg allah